سيدي ولد آدم مولى خفرة الخيل أتحدث بنعمة الله شكرا وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي سيتان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعية أنصار الدين بويتالي mooy dalal oustaz Ibrahima Mahmoud Diop fii ci Bergabon tey àjjuma ñeenti fan ci weeru sulet lan 2008 mu di koo xam ne alim la di alama mu di koo xam ne loo déggee ci moom ci bàyyi loolu la mu di koo xam ne loo déggee ci moom ci tarixa tijaan yi loolu la mu di koo xam ne loo déggee ci moom ci diine lislaam gëm topp loolu la mu nekk marja bi kulli maanal kalima kooku nag moom lañ dalal tey fii ci Bergamo kon nag Seydou Moustapha ma jox la bi nga nuyu su ko def ñu ci waxtaan bi. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen delloo tontu ma nuyoo yooyu. di sant yàlla ci daje gi ñu daje nii encore gannaaw ay ati at yu ñuy daje fii ngir yàlla waaw léegi sama laaj bu njëkk moo di e, dafa am ñu nga xam ne jamono bi ñëw ci baay booba ñu ngi nekk mag am ñeneen ñi bi ñu ñëw ci baay boobu e, nekkuñ mag yow e, kañ nga ñëw ci baay alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah kañ laa ñëw ci baay ma kañ lañ ma indi pour jox ma baay mu jàngal ma yar ma kooku teel na lool ndax daal li ma ci xam mooy euh, maam Roqi Njaay euh, ci soxna maam alaaji Abdoulaye daf mel ni ci ci gënoon euh, ndawe la bokkoon bi maam alaaji gaañu hmm. kër bàyyi la nekkoon ndax magam mooy yaayi yaa ami ñang yaay ñoo makki ci kër maam alaaji bokkoon na ci ñi maam alaaji taxoon ñu xam suma papa suma papa doon taalibe maam alaaji boo xam ne ah, ñi ngi am kayit gu maam doon seedeloo mbooloo mi ne muridu sadiq la wax ci jafe lool ci maam alaaji ba balaaji moo seen bu ne loolu jar na ñu woy ko ndax buñ ko fàtte ndax eh, maam alaaji néew na muy wax nit muridun sadiq ba tax mu naan mahmudu naa la bayna jilihi umuur fa saara maxbuutan biha karra duhuur سماه شيخه المريد الصادق ما أعص ما أصعب الوصف فكان فائقا بمجا آه ما مراقي ما منك تقول رجوك ما منك سوى باي محمود جوب دفع خي بنبس ندفعي أندوجيك كم أدا بمي إيه السلام عليكم رك من سوى بابا نكو يون يون إبراهيم بروم دالي جانغ بايم أبلا يوبنكو ما ما مراقي نكو نكسم كندا جيخنا salaamaaleykum ndax dafa bëgg ñu jox ma ko mu sàmm ci kóllëre ndax xale bu bu ndaw foog ñu jox ko nit ba mu egsee rek jubal nag baay mu ne mu nuyu baay maam roqee may nettali mu nuyu baay mu ne ko ba baraama ngi noonu ci perong bi di jooy max mu dafa bëgg lu mu joxe rek waaye xam na ne kii mën na ko dal jàng kon nag eh, xale laa bi loolu moo ko tontu yëg naa ne daal maam roqee jël na ma ti soxna su baax ma nekk moom ci biir néeg bi mu nekk maag ñeneen sax euh, bés boo yaay bés nee na ma daf doon dem marché jiit léegi ay jigéen ñu ko xamut ñuy dem marché mu dégg ñu naan xale bi ñuy wax baraam Jóob di xaw ma ku yaay waaye bu tuddee war naa nelaw maam roqi yaay baraam lekkal baraam toogal baraam naa soo yaay mu ne sama ndaw gi dog ma ne ko yaay loolu ci ndaw gi dog dog de suite donc euh, teel naa dem ci bàyyi Eh, bi nga ñëw foofu ci teel noonu kon foofu nga dalee jàng alxuraanul karim mhm. ci ban diir taqdira ci ban diir nga mokkal alxuraan hmm, fala fala dalee alxuraan fala ko jànge fala ko mokkale mais eh, jaar naa ci ñetti sëriñ eh, ahmad wuld rabbaani mooy sëriñ bi gën a ràññeeku ci jàngale alxuraan ci Medina ndax moom la bàyyi indi woon muy taalubeem di shérif ci côté yaayam pour nit ñi seen làmmiñ set moo daan jiite itam naafi la ba ni magee lool hmm. Hmm. bañ jaar naa ci Baye Amadou Touré mooy ki doon laaj Baye eh, alif laam miim yàlla kitaab ak wabtalul yataama borom laaj googa ci jaww rasaay mooy Baye Amadou Touré borom alquran la woon. ku am xam-xam la woon ku rafet mbind la woon mais maa ngi la ci Baye Alaaji Asta sëtama ngi fii ci Italie ak yéen moom ci moom laa ci moom laa pare waaye am na zaahira ci su ma jàng alxuraan am na phénomène boo xam ne maanaam mokkal naa te jébbalewuñu ma pour ma tari te moo doon aada wax nañ ko bàyyi ay yoon mel na ni moo ko jublu ma nekk foofu rek bis bu set bàyyi laa déglu ma ñaar fukki xisib yoo xam ne mujj na su ma commencé rek mu commencé nelaw ci pilaanam parce que xam na ne du ma gàgganti lu ñetti fan ñu ma ma ma ma ci ci moom benn bés ñu dem Kaolack gannaaw gi lu yàgg ci benn dëj soxna Astu Amar xam naa kilifa woon ndax bàyyi ñëw na ci ak kilifa yu bari ñu séddale jukki yi ñu jàng ab kaam ndekk ma lii mu yox dafa xaw a bari bu ñëpp dañuy jàng ci kaw nit ñi pare pareeguma te ma bañ a noppi ci Kaolack ñu foog ne damaa ñemewut li may jàng ma continuer rek faf ñëpp di ma déglu ba ñu ñibbi si na rek baa ngi ci kër euh, yu ñuy wax kër xadifaat yi sës ci jumaa ji foofu la nekkoon këram moo ma ne ma jot nga sa shahada man ko shahada la mun ne alxam man ko taree gu mu a ah, enkañ enkañ ah, da li génnee kii diplôme bi bin remplir ko loxoom lam ci marqué boobu fukki at ak juróom-benn laa am mais mun nga ci génne lu ëpp ñaari at yoo xam ne boo fekk na sari dem naa sax ba commencé jàng xam-xam ëpp na sax ñaari am buñ la joxee shahada bàyyi dafay wax tur wi wax at yi fu ñu bind axlaaquhu ay jikkoom bàyyi bind ca adibun zakiyun nashitun li taallumi am na yar am na xel sa sawar na ci jàng ñu léegi bi nga mokkale alxuraan noonu yaa ci ak ndaw eh, te léegi gis nañ ci wàllu xam-xam eh, ni ci mel fa tabarakallahu ak wàllu wëy léegi noo eh, fan nga jaar ba jàng xam-xam yooyu <laughs> gis nga nag man pour gàttal man wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla man ibrahim yu laa wala barahami yu laa pour mu gën a leer tilawatan wa taalluman wa tanshiatan wa tarbiyatan su ma yëf yàllaa ko booleeg bàyyi daal te loolu suma chance la defe naa ne Medina am na ñuy jàngale te bàyyi leen ko sant te ñaar yi daf daan jàngale mais nag na daf na ci moom bàyyi indi na fa bàyyi ma du caam ab du ñàmbe gannaaw gi pour mu jàngale ndax dafa ràññeeku ci jàng leen naxwu ki muy jàngal dégg naxwu loolu jafe la mu ngi mel li may wax garaawul mais lu garaawul ndax ñu bëri dañ jàng xawaayid yi ba naan jaar majroor fayal faayil mubtada xabar mais fekk duñ xam li ñuy wax amul ci am nag yàlla ku may pédagogie bu la jàngalee da ngay jàng baat yi di xam atte yi ci mas misaal nii rek mubtada xabar gars yi dañuy soow rek mu def lay wax ne mubtada mooy bépp jumla boo xam ne suñ ko waxee mën ngaa wax ne ah zaydun wax ji daanoo ko nga naa mu ne qaadimun mi ngi ñëw nga xam ne wax ji daanoo nga xam ne lii wax la ah, bon ak nag ñeneen ñuy jàngale jàngale mais ñooñu ñëw ci gën a ràññeeku eh, ñi ñu jiitu ci daara ji mooy Alaaji Abdoulaye ak Maasom gi ñun ñu ngi leen maa ngi ko fekk ci alxuraan mi ngi ci suratu Yuusufa Alaaji mais ci xam-xam fekk na mu sori bay bay ci moom laa miine sax mu taalaa moom suma model la woon alaaji Abdoulaye ba ci ni doon solee ba ci ni muy laf bu set bi muy wax moom bu ko bu jëroon lim def ci man rek lu bari di def ci dem dana ko yàlla fay alors léegi euh, euh, jàng naa ci Baye Modou Thiam bàyyi ba booleeg moom mais nag am na loo xam ne mënoo koo laaj ndax sa xel du ko daj Baye daf doon suivre fu ma jàng ci Baye Modou Thiam maanaam personnellement téere bu may daal moo ko naan na dal téere sàngam Baye Modou Thiam moo ko bind ne ko jeexal moom moo may moo may moo ma naan bind ma ma tabax la ma mën a gis néew ne ko bu may daal bu ko defee mu bind ci suuf ne du man maa lay tànnal damay jëlee ndigal ci ki nga xam ne su ma xasee digal baxrul muhiit ci man lay jëlee xam nga mi ngi mi ngi mi ngi xam bu baay bàyyi na ko na daal téere sàngam su ko xelam atténé na ci boole téere sàngam ñu nekk ca nekk ca ba maa ngi ko mujj bind bi ma jeexalee eh, bi ma jeexalee Mawhatul Arab ak Laamiya ak ñoomin seen lettre bi ma bindloo nag boobu dama bind lettre nag bàyyi jàng ko sant yàlla ne gis naa ما كتبه الولد الأرض والسمي الأخضى حبيبي وابن حبيبي والسمي فقلت إيه يا فتى الفتيان ومجلي حلبة الرهان بارك الله فيكم واخترت لكم الخلاصة وعسى أن تكونوا دائما في غنى بلا خصاصة مسماكم إبراهيم محمود إبراهيم نياس إبراهيم الحاج عبد الله مسماكم لي لا تي maa ngi koy gis naa maa ngi sant yàlla gis naa li nga bind ma ne la iihi dollil ci lii mu ci arab iihi boo ko koy iihan sooy wax waaj ne ko iihi mooy encore iihan nag mooy rek loo indi rek baax na mu ne ma iihi yow mi nga xam ne daal te yaay ndaw yi ndaw yi eh, ci tagg te yaa raw ñi ñi ñi jiituwante kontaan naa ci sa taxaw nangam nangam nangam eh, tànnal naa la xulaasa mooy Ibn Malik te yaakaar naa ne ci koom ngay nekk daa iman bu àndut ak ñàkk te noonu la borom borom Ibn Malik tëjee téeréem ba ñuy jàng nag ba boobu nag la bàyyi cëf jàngale ma fekk na boobu nag eh, daara ji nag jógaat nag bàyyi lal jàngu di dafay jàngale gannaaw tisbaar ba timis jàngale fànn yu bari benn bés sax dem nañ ci lixmiraar bay xool mbooloo mi ak nit ñi mu ne seen góor góorlu gii su ngeen ko bawut xëy na sax lixmiraar ma wayaat ko ku xamul nag lixmiraar rek yaay doo xam gravité wax jooju <laughs> mel ni ko ne dugg avion nga bu dee avion bi dafay sopp ma defaraat ko alhamdulilah ci bàyyi laa jàngee ki bàyyi laa yaru moo ma jàngal sax nu ñuy bindeek nu ñuy gëstoo fekkee laaj nga ci dinaa ci wax waaw kay génneguñ ci wàllu jàng ba léegi parce que damay dégg ngay làkk français hmm. dégg itam ngay làkk anglais hmm. danga def école français wala de man defuma école français defuma école arabe sax école bàyyi laa def toog ci suuf jàng dem topp luñ lañ la wax nga jàng loo xamul laajte ba boo dëgëree ñu woon nooy utee xam-xam waaw français comme dafa nekk euh, euh, langue officielle u Sénégal foo toll nekk say moroom yuy jàng français euh, bon ittiwoo naa ko lan daal laa seetlu suñ pari ju xumb jooju laal mm, atom bàyyi na ah bu ñibbee dama bëgg nga jàng français mun ko loolu wax na ma ko moom boo tee nag maa ngi sant anglais moom moo ci tane parce que biñ ma bi ma détaché Gànna ñu jox ma département d'arabe ci institut supérieur te laajuñ ma sax cursus booba nag occasion la pour ma ma ci institut de langues jàng fa anglais tout. mais nak coup d'état ba ba jeexal séjour ba moma ma parce que demone nañ bugg yoni yónni Londres pour ma def formation linguistique ci Oxford pour que cour yi ma doon joxe ci arabe mo won ko joxe ci anglais mais ni kon day tourner suma dund heureusement. Mhm. bon léegi janguma janguma jànguma dugguma école français duguma école arabe. ci wàllu euh, ijaasa. Mhm. maa ngi dégg nga ngay nettali ne bàyyi lijaasal na la. Mhm. ci rawdatu sharif ci muwaajaatu sharif ci xabru yonent yàlla Muhammad. waaw waaw waaw bàyyi daal. radiyallahu anhu wa ardaa yéen la ko yàlla fay. ay ijaaza la ma defal xam nga tudd naa ijaaza ci mbokkal alxuraan. bi ñu jàngee ba moom mu jugé ne alhamdulilah rabbil aalamiina jox na ma ijaaza boo xam ne diplôme boo xam ne ma ma ma nga tudd al ma nga tudd al aalimiyatu fi lugati al arabiyati min darajati ustaaz fi balaaga wal adab waaw xam naa daal diplôme d'éducation la boo tax moom mu naan ma ustaaz ndaxte ku ko am professeur lañ lay ooyee Euh, jox na ma euh, ijaasa ci lépp lum taalif ak lum ñaan ak jawharul maani ak buxya te te ma boole woon naa ci beneen téere ci téere tarixe bi mais daf ko caa génne te wax na ma lu tax mu ne yi doy na euh, door ma jox lijaasa bu mag bi nga xam ne mooy yi denk turu kenn nekku ci lii ñu bëri mosuñu koy dégg ñaari nusxa la sax bii man la ko sottiloo bii suñu mbokk ndem si yàlla Mouhamad Kabir fay la ko sottiloo ku rafet mbind la woon ku am xam-xam eh, benn bés mu am ku muy lijaasaal benn kilifa ne ma ñaari lijaas yi bindu kan la man ne ko bii suma bind la bii Kabir mu ne man indil bi nga bind bi yëpp taxul man ma jëli ko parce que bu ma amoon ijaas bu réyee noonu ak lim ci wax muy sama mbindam loxo histoire mun na ko contesté ëllëg ba mu bindoon mu jox ko kooka mu des nag eh, bi Kabir bindoon suñuy tukki sax dama ko fi bàyyi ngir ragal cartable bu réer lu mooy yoon wi ma ko joxe ñu départ di aji te mooy ajam gu mujj ma ne ah, xaar ma yóbbu ko yóbbu ko ñu aj barhamu baun waraun alifun thumma ha